di leen wax li règlement bi nangu ak li mu bañ dox ci diggante Pika ak Ablaye Diop bu Yoff Ablaye Diop bu Yoff moom ngeen jàkkaar lool boo xees Pika moom moo la woon ginnaaw moo ngeen boo ngeen bu la vert li ndeysaan ñu ngi doon arbitre bi na Pika ba xam pare nga laaj na Ablaye Diop bu Yoff ba xam pare nga arbitre bi sifflé na mbokk yi 8 juillet 2021 arène nationale mu ne vingt heures huit minutes ndaysaan ki ñu fi woo mooy Ama Dia production Pika mooy grand combat bi ak Ablaye Diop bu Yoff ñu ñaari poids lourd lañ ndaysaan moom ngeen jàkkaar lool wala boog Pika moo la woon ginnaaw Ablaye Diop bu Yoff ngeen jàkkaar lool ñaari xale yaa ngi noonu di leewaatoo ñu xoolante ci bët ndaysaan ñaari xale yaa ngi noonu di xoolante ci bët cey làmb ñaari xale yaa ci bët ñoom ñaar ñëpp baax na ci làmb ñoom ñaar ñëpp baax na ci làmb bi nga gëdd na ko ndeysaan da ko doon Ablaye Diop dox na ci doon na Ablaye koy agressé da koy dóor dóor na ko ko Ablaye Diop yor sol na Pika door na ko daan na Ablaye Diop Pika daan daan na Ablaye Diop Pika daan daan na Ablaye Diop Ablaye Diop daa topp xeex bi. Ablaye Diop jël ko ba wérante. Pika daan na Ablaye Diop. vite fait bi. Pika daan na ko. Pika Pika ngi noonu. Ndeysaan.